jërëjëf Sira ñu àddu ci leneen ci xibaar yi mbokk yi wax ci lu ñeel euh, ab gàmm goo xamante ni ñu ngi ko doon amal fële ca Ngourane ba tax na ay euh, taalibe xaadar jóge fu nekk ngir daal di amal xew-xew diine boobu ñu jagleel nag euh, maanaam bokk ñii di xaadir yi ba tax na xalif ba di Cheikh Déthié cawlaay Laye Seck moom nag mu ngi woote jàmm waaye itam mbooloo ak tamit fexe ba jàmm daal di am ci sunu réew Sénégal ñu teewlu kàddu xalif bi ànd ceeg Tidiane si ak Modou Ndour. dama ne sëriñ Muntaxa yal na ko yàlla may wér ak fan wu gudd te loolu ñépp a ko war a wax li muy li muy liggéeyal lislaam di ko liggéeyal askanu Sénégal wii te xamu ci ku nekk murit ak ku nekk Tijaan wala ab xaadir loolu dafay def rek ngir nit ñi gisuma kenn koo fi def na dégg ngeen Covid bii ñuy wax bi mu fi dikkee ñaari million la ñaar ñaar téeméeri million la joxe keneen defu ko fi lakk gee woon ca marché Ocass ñeenti ñeent ñeent fukki million la leen jox am na geneen ko amoon moom itam ñeent fukki million la leen jox accident bi am bërki démb ñeent fukki million waaye nag loolu dañ caa war a gëmee gën a gëmee la yàlla wax yàlla nee woon wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raaziqiin ba mu joxee ñu accidenté ñeent fukki million ca ëllëg sa la waa Daaru Salaam dikk jox ko ñetti téeméeri million ak juróom benn fukki million ak juróomi million muy at mi lépp nga xam ne boo calculer bis bu nekk million la trois cent soixante cinq jours ñu jox ko trois cent soixante cinq million te ñeent fukk la joxe woon xam nga ne yàlla rek jara jëndanteel ñu ne joojoo mu mu mu jóge Poroxaan ñëw def euh, ubbiteel université bii nga xam ne Afrique gépp amu ci ci loo xam ne lii 37 milliards la te dama ne leen murit moom ku ko xasit te dib sëriñ da nga amul waaye man de bu ma woon ni murit it jël nag moom moomu keroog ba mu ubbee ba noppi waa bu tarqiya dañ koy jox téeméeri million ne ko téeméeri million yi dañ koy yeesloo ci weneen sas woonuy sas li nga nu sasoon fàtte nañu ko andi weneen loolu moo ko fi am kat waa waa eh, sa salle de conférence bu mu leen defaloo ci ci Daaru naan te man foofu laa daan dal suma demee Touba fa ñu ma daan dalal salle de conférence ba def na juróom juróomi junniy nit ba ñu noppee dañ ko ne waaw sëñ bi ab ab euh, euh, entrepreneur boo ko joxee liggéey mu di ko liggéeyal ba mu yegg loo yaakaar ne mooy nekk ci xelam sëñ bi leen ah loolu de entrepreneur baa xam mu ne xanaa nga jox ko beneen liggéey rek pare nañu fii jox mu leneen loolu moom rek man nag li ma ci yàlla dimbalee mooy sama baay Cheikh Alioune rahmatullahi alayhi dafa doon borom xam-xam di borom wilaaya di koo xam ne kii lu lu bokk ci kiñaan lu mu tuuti tuuti dalu ko dañuy waxtaan suba teel fii ci saalam bii mu di ma waxtaanal ci sëñ Touba. may yéemu di yéemu ba mu jàgg mu xool ma gis ne li muy wax yéem na mu ne ma Maxtaar da ngay yéemu ci li may wax lay wax ci sëñ Touba mu ne ma ne ko ah waaw wax dëgg yàlla yéem mu ne ma ah yow de xamoo dara ma ne ko ah mu ne ma xamoo lu jox sëñ Touba li mu am ma ne ko déedéet mu ne ma dafa jël léppam jox ko yàlla yàlla fayee ko ni mu toll mu ne foo ko dégg ren bu dee ne nga dégg ko